li mu jotee ci doon nañu waxtaane almudraj almudraj mooy lan almudraj suñ fàllu ci ci yi la mudraj wax jooju waxi kenn ci ruwaat yi la waaye mu kook xadis bi te leeru ci ne bokku ci leeru ci ne bokku ci xam ne ku ku jàpp ne ci ci ñun daal day man mu ci bokk te fekk bokku ci waaye waxi kenn ci ci ruwaat yi daa nekk ci matn daa nekk ci sanat bu dee ci mat na waxoon nañ ne léeg-léeg idraaj léeg-léeg dana doon loo xam ne ki koy def moo ko jublu léeg-léeg mu doon moom jublu ko woon daa waxoon ay waxam rek ñoo ko doon nettali ginnaaw ñoo ko nettali anam goog dee su ko bu dee lum jublu nga xam ne moo ko jublu moom loolu daan waral lu mel noonu fataawi di idraaj mooy ci biir xadis mu dugal ci waxi boppam te jublu ko lu war lu daan war a tax mu koy def waxoon na ne lim daan amee ci xadis noonu daan amee ci ci alquran alquran te njëlbeen bi léegi tafsir dañ koy tuddee ci tafsir loolu lu war a tax nit daan idraaj te jublu ko loolu nag. bëgg a leeral bëgg a leeral bëgg a leeral daanaka mën saa bëgg a leeral rek la bëgg a leeral rek rek jublu gëm bëgg a leeral daan doon muy bayaan wala tafsir wala char lu mel ni ci xadis bi ñuy wax xadis badi il wax bi sayyidatna Aïcha nett bi diko ibnu shihab jele ci mom diko ko mom ibnu shihab dina yonent bi dinaan dem ca ca xaar ba allayaali yali adad al na dan yatahannasu teg ca wa tahannasu taabur wa tahannasu taabur jooju waxi waxi ibnu shihab moom day leeral ja taxannas bi mu waxoon noonu moom lay leeral waaye ci biir amut lenn lu ko ràññale luy wane ne bokkut ci bokkut ci wax Seydina Aïcha bokkut ci bu ci daan am saxaaba yi dañ daan bindal seen bopp di ko yaral seen bopp léegi dañu àgg ci baat dañuy bind ci biir firiñ buñ ko ci bind du am luy luy ràññale ne bokk na ci bokku ci xam nañ ne mbind dañ koy gën di rafetal rek mbind yëpp dañ koy gën di rafetal waaw ginnaaw bu njëkk amutoon li ñu tuddee alaama tarxim yi amutoon ay faasilaak ay noqtaak ay yooyu yëpp amutoon ay xaws ak ay chartaak yëpp amutoon kuy bind da ngay bind mu jokkoo rek bu doon léegi bi ay alaamaat yi amee nit mën naa dugal dara ñu xam ne lii lii waxam na te sax du du du ko wax waaye ci ci alaamaat tarxim yi rek boobu nag loolu amutoon لمن بيعلن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أمنا تصحابة يكون أمنا لم يرى المهم دولي دولي لأم ولا من أم من الأم لا خمن لولا نجي جبل أم ودفكو تنجير لا رب لا وخوانا نجي العالي النازل lan mooy aali ak lan mooy naasi aali ah, de mhm. aali ah, de mooy ñu gën a jege yonent bi mooy mutlaq mutlaq buñ na olu mutlaq olu mutlaq mooy loolu nga wax olu mutlaq mooy dafa gën a jege yonent bi dafa hmm. gën a jege kon mooy loolu ñu fi dox lim bi fi dox moo gën a néew beneen saa bu ñu ko waxee rek daa naaj dafa am ñun ñaar dañoo dañoo dañoo lëkkaloo saa bu ñu nee Ali rek daa fekk ne am na beneen bu nettali lim nettali te gën koo gudd gën koo bari li waaw hmm. tey nu mën nañoo jël al mawdu al mawdu mottalee ko almaqlub jëloon nañ ko duñ ko jiitaloon boole kook la wees kon almawdu lañ jël teg ci liñ def tan bii teg ci man yuxtaj bi riwaayat almawdu moom danañ ko tuddee itam almuxtalaq danañ ko tudde almasnuu mooy lu ñu sos rek lay firi muxtalaq mooy lu ñu sos masnuu mooy lu ñu defar mooy lu ñu sos ba tey mooy loo xam ne kon amul cosaan kiñ ko askanale ne moo ko wax wala moo ko def waxu ko def waaye keneen a ko sos fent ko mu koy taarif ne wa huwa makzubun bihi ala nabi nee na mawduu mooy loolu mooy makzubun bihi ala nabi mooy lu ñu sosal yonente bi salallahu alayhi wa sallam jëmi mawduu nag Euh, dañ naan moo yées ci daif moo ci yées moo ci gën a féete suuf am na ñooy sax yéesam gi dem na ba tax sax far boole wuñ ko ci daif dañ koo gar moom nga xam xeetu boppam la woo xam ne moo yées ci lépp dañ naan saxiix xasan daif mawdu nga xam ne kon mawdu dañ koy gar mën na xeetu boppam waaye li gën a kii mooy ñu boole ko ci daif waaye moo yées ci daif moo ci féete suuf ku mel ne imaamul xaramayn al juwayni way juróom way juróom di abdullah al juwayni moom dafa wax sax ne ku ko def te tey ko yéefar la mm-hmm. yéefar la waaye ku sosub xadis te tey ko sos dara te tey ko askan la ko yonent sans ku ko def yéefar la koy jàpp ngir wane kon fi mu kon ci ak mbon akut ñaaw kon mooy makzubun bihi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu tekki ne kon nag laa tarwi aw taamal bihi bal jannibi duuna bayaanin mooy laa tarwi aw taamal bihi duuna bayaanin lu lu nekk mawdu nga xam ne mawdu la laa tarwi bu ko nettali duuna bayaanin bu ko nettali duuna bayaanin te àndut ak nga leeral ne mawdu la بوكاي نت رك نانتا نانتا بولا خم لنا موضوع لا بوكاي نت رك نتيال او تعمل به بوكو جيفي يدم بل جنني هاد نانكو مويت نانكو مويت سوري بوكو لال فن لو حكم بو موي حكم بو موي نكون تي سوكو صح لودول ني سوكو نت دي وني والي dees ko jëfee dama kenn waxaale ko dees ko jëfe ci lenn moom ci lenn waxoon nañ ne daif bu àggul ci mawdon ma des na ko jëfe ci fadaa'il bu dee ko jëfe ci lenn léegi ñi ko daan def nag dañuy ay xeet yu wuute ay xeet yu wuute muy wax nag xeet yu ci yées nee na ci ñu ko daan def لأن الشر من له انتصب من أظهر الزهد وبالوضع احتسب شر من انتصب له من يس ولا كي يس كي كوباي داف كو اسكان وضع من ني وضع رك نتي يس موي من اظهر الزهد كو فاني لك ددو ادنا واحتسب بالوضع توضع بامي داف مو جوغلو جي جامو يالا جوغلو تي لو باخ nee na ñoo ñoo ñoo yées ci ñi waddoo xadis ndax ku baax lay doon day doon nit ku baax kuñ xam ak mbaax ci moom xam ci moom dëdd àddina te bi mu koy defee di sosub xadis tam moom lañ ci jubloon daa jàpp ne lu baax lay def mu ne kooku ci yées li tax mu yées mooy dees ko ko fooge dees ko ko fooge ndax mbaax gi mu baax moo tax mu yées bu dee ko mbiram fés moom bu kii yëpp mën nañ ko fogé ba man na bañ yàqu bari buñ ko fogé nak ko défé kon moy yes ñu koy def jeex tasaba mooy di ko def ngir jàpp ko lu bax di di ci jege bëgg ci jege yàlla bëgg ci def am jaamu yàlla mu joxe misal ci ñu mel non mu ne mislu alladhi sanaa fil lfadaili an turjumaana an turjumaani dhikri sharru jahili mune lu mel li nga xamne sharru jahil ji moy fa'ilu sana moy li nga xamne sharru jahil def nako fi al fadail fi al fadail mo fi fadail al quran sharru jahil da ci jublu ki ñi wax abu isma nuh ibn abi maryam al mirwazi mom mo sos ay xad ab ay xadis di ca wax ngëneelu alquranul karim an turjumaani zikri tamu tamu askanale ko nag turjumaani zikri mooy ibnu abbas turjumaanil quran dañ koy ko dañ koy dañ koy tudde noonu ngir lim lim lim mën a tafsir ba mel ne kon mooy kiy leeral alquran ibnu abbas moomu ki abu isma nuux ibnu abi mariam nii dafa sos xadis askan ko ibnu abbas wala na ci mom la jaar di wax ngëneel yu alquran am mom biñ ko topé ba xamne ne ne ko lu la ci xir nak lu ci xir lu ci xir ngay sos yi dane dama gis nit ñi dal won ginaaw alquran won ginaaw alquran yittewoo ay fiqh ak ay siiraag yoy rek ma sos xadis yi ngir jaamoo ko yàlla ngir bëgg loo leen alquran xemmem loo leen alquran tax ma sos xadis yi di wane ngeen leen alquran moom lu baax la jublu ci xalaatam moo tax mu mu doon mu wax ne mel noonu ñoo yées ndax kenn doon ko foogee moo tax nu wax dañ ko daan tudde nu wax al jaamia al jaamia loolu kiyam la dàkkentalam la laqabam la jaami xëy na mooy li muy dajale daa bari waaye bi bi bi defee lu mel nii bañ xam ko ci moom am na ku ci teg ne al jaamiu kulla shay'in illa sidq <laughs> loolu ci teg waaw dajal na lépp lu dëgg mooy sos gi muy sos tax li muy day sos jàpp ne lu baax la loolu misaal la ci kon ci koo xam ne nit ku baax la ba noppi di sos ngir jàpp ne sos gi muy sos mën naa doon lu baax ba tey li daaka qad aqarra bi ma an ubayin jaa bi ittifaaq naka noonu ku ñuy wax maysara ibnu abdi rabbi moom it ci xeetu nu wax mi la bok xeetam mooy ñoo bokk mbir daal moom it moo iqraar dafa sos dafa sos ma jaa an ubay kon dëgg-dëgg jógewut ci ubay waaye mooy li ñu askanal ubay rek te moom moo ko sos askanale ko ba tey moom it ci ngëneel alxuraan la nga xam ne koy jël saar saar saar sàngam am na ngëneel sàngam saar sàngam am na ngëneel moom itam dem na ba na ba nangu wax ne moo ko sos hmm. bitti baax yi mooy dëppoo nañ ci ne da ko sos moom Maysara ibn Abdi Rabbi kon daa joxe benn xeet rek xeet yi sos comme wax dama xeet yi ci yées am na yeneen xeet ñoo xam ne leneen moo leen tax di sos ñi ñoom bëgg lu baax leen tax di sos waaye taxut sos moom mën a baax ndax dañ naan bu dee ñoom ñaar ñëpp fekkee li ñu bëgg rek mooy xemmem loo nit ñi alquran am na xadis yu wér yu doy sëkk ci xemmem loo nit ñi alquran kon jëru sos yeneen ndax lu wér doy na sëkk te xamal nañ ko alxuraan kon sos leneen di di ko ci dolli. waaw ci daan sos am na ñoo xam ne euh, bëggul neex nit ñi rek fi mu ne yëpp day am ba nege ni day am ba nege ni day am ba nege ni ci lu dul xadis waaye ci ci sañ bopp. ñoo xam danañ ci sos ñoom ci biir mu murit gi nii di sos te fekk jàpp ne bu luñ luñ dégg ñu wax ko ci sëñ bi rek wala kuñ fonk rek ginnaaw lu ko yëkkati la rek duñ ca gëstu sax ak ak wéram ak ñàkk wéram dañ koy daal jël rek jottali ko ñoom itam nañ caa yokkal seen bopp sax ay ay ngëmtu yoo xam ne ñoo ko seen bopp sax loolu day xaw na lu sos booba yeneen yi daan am itam muy yooyu siboor ak yu mel noonu nekk ci kilifa rek di ko sibooru ba tax nga sosub xadis boo xam ne day dëppoog mbiram hmm. loolu tam loolu noonu léeg-léeg muy am suñu gars yi moom nekk benn rek di nett nett yoo xam ne ngay day dëppoog mbirum ci mbirum ki ngay waxal wala ñi ngay waxal hmm. loo xam ne benn nga sos ko wala boo ko sosu jéemoo gëstu ak ak wéram ak dara ngir liñ ci jublu rek légui nak amna ay màndarga yo xamne buñ ko gisee ci hadith man ñaan jott ci mom gis ko rek do tax ñu daal ne ñu daal ne mawdu' la amna yo xamne gis ko rek do tax ñu ne mawdu' la amna xamne gis ko xam ne la lu melne man yo arafu yorafa bir rikkati ar rikka mooy ar rakaaka rek rakaaka moy daaf ci wax ضعف في لفظ ولا ضعف في معنى من كلام جانجة في بلاغة الفصاحة كون واحد جو خمنا دفا نك ركيك في لفظ ولا في معنى تكي كوي نت لي وقول ني دكو نت لي بالمعنى دين آه، دكو نت لي باللفظ بناك ما أمرك أكا دين خمنا تأسكن في أنت دين خمنا ويروت نخ أنت بخم أمر لول يونتي بخم بأمرك أكا yonent bi ay arab amut amut rakaaka amu ci ay arabam ñaawut bonut kon ku wax arab yu bon ba noppi ne nii ma ko nettalee noonu la ko yonent bi waxee woon te ne yonent bi dañu xam ne du dëgg ndax yonent bi arabam bonut moom ko xamee itam al iqraar mooy ko def ci boppam wax ko ku mel ne nu wax nii ak may sara ku ci ne daal nangu ne moo sos xadis yi waxtu nangam ak nangam ak ñeneen ñu dul ñoom ñu bari nangu nañ waxal seen bopp ne sos nañ xadis kon ñaar yi moom lu ci am rek dañuy xam ne moom lu ñu sos la wa bil xaraa'in xaraa'in nag mooy yeneen màndarga yoo xam ne moom moom rek duñ doy waaye daan tax ñaaw ci njort lu ci bari buñ ci ñaaw njort ba gëstu ko rek dañ xam ne lu ñu sos hmm. ka lépp chearaari xaraa'in yi mu joxe ci misaal nee na lu mel ne yàqu siaraar yàqu siaraar mooy lox lox bu yaram yaramu ki ko dégg di lox mooy ki ki xam dara ci xadis rek ki xam dara ci xadis bu ko déggee rek yaramam coppam da ko dut nangu di lox loolu xari na la loolu rek doyut ñu ne mawdon la waaye bu amee buñ ko gëstoo mën nañoo fekk ndey nekk mawdon ak yeneen yeneen yi bokk na ci mu wuuteeg موتك صريح المنقول يعني صريح المنقول موي القران دي لير ناني ولا سنه سو صح تلير ناني تا دون تي اصول اصول ييغا خامني نيو ناي اصول دي من اركان الاسلام ييب خام نانكو لي مو اركان الايمان بو من حديث بي نيو دي واخ لو صفان اك لولو نان لولو قرينه واضحه لي والله wala luy wax lu safaanoo ak li ñuy tuddee xam-xam bu wér xam-xam bu wér xam-xam bu ñuy tudde xaqiqa ilmiya boo xam ne xaqiqa la àgg na ci xaqiqa nekkul nazariya waaye xaqiqa la xaqiqa ilmiya bu amoon xaalis bu ñëw di wax lu safaanoog moom dañ naan wérut dañ naan dañ sosu ndax xadis ci yonente bi lay jóge bu wéree te yonente bi la muy wax ci yàlla lay jóge yalla koy wax lo te yalla mo bindi jamono kon lam ci wax du safaanoo ak li am deug dëgg ak tay me mooy li wane li am deug deug li am deug deug bu mën a ak wax ju jóge ci yalla kon bu safaanoo ak li am deug deug lo xamne ne kenn lu na moy li am deug deug mom bu dara ñe safaanoo moom dañu naan kon wëru bu ne yéen ko wax dañu naan dañ koy sos waaye boobu yooyu misaal la ci كن موضوع معي كن يس في حديث بس كده في الكون في فن في أكلم نت لكو سهر يام كي بني واحد دار جادور كوي نت كده بكوي نت داور بكوي نت لنيروانة الموضوع له كده في جوانا كي نسأل كي نكون عنده نتي يس ما ينعا خم نه بنتي رفيق جبل كلو باخ نعم دنيا نوح نه صح نعم نتي دان جبل دنيا نوح yonent bi kat daf ne man kadaba alayya mutaamidan alayya la wax nun nag la nakzibu alayhi bal nakzibu lahu waaw ñoom ci seen xalaatu bopp dañ ne alayya day mel ni ku koy yàqal la ñun nag yàqaluñ ko ñun dañ koy defaral ñun dañ koy sosal ngir defaral ko waaye loolu lépp wér dara wéru ci sos sosal ko lay bañal sos li ko askan rek lay bañ وعم جادول defaral wala jaaduwul yàqal tanbiix bi day wax xadis ku koy nettali te andiwul sanad bi nan la koy nettalee mu ne wa naqlu lisaxiixi duna sanadi bi siixati ljasmi ka qaala faqtadi mu ne kuy nettali xadis bu wér te andiwul sanad bi boolewu ko ci kon moom bi sixatul jazm sixatul jazm lay jëfandikoo mooy bu koy wax da cee dogu ne yonent bi ci yonent bi la jóge lu mel ne mu ne qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dina xam ne ne xadis bu wér la te indiwut sànn bi na ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu ak dogu la daf ne nee na waxte bi bu doon jëf nga ne faa la nga xam ne moom itam ci dañ ciy dogu وغيره لدول صحيح نك نك دنيا صحيح أك ضعيف رجنا دنيا صحيح أك ضعيف رك دنيا دول صحيح ضعيف لن تجيب نعم، حسن دن قران لما نكبير صحيح تجبر دنيا صحيح أك ضعيف بن بنكو بنكو دفع نار رك حسن دا دوغالي تي صحيح كون لا تي ريس ضعيف لن تجيب وغيره ما لدول صحيح تضعيف لن تجيب في موم ممرض دنجكو نيتلي li ñuy tudde siiratu tamrid tamrid mooy waxiin woo daal da koy woyofal do du dog du doonuk dog du doonuk dog ka warada lu mel ne nga ne warada warada warada mooy dikk na rek dikk na ci xadis daal nangam hmm, boobaa doguwoo ci ne lu sax la wala nga ne ruwiya nga siratu mabni lil majhul ba tey nettaleef na nekk na jëloo ci benn engagement jëloo ci bëgguwoo ci waxoo ne yonent bi ko defaa ne nga daal nee nañ yonent bi nee wa jaa ba tey nga ne jaa jaa an na sallallahu alayhi wasallam faala kaza wala qaala kaza ba tey loolu lépp doguwoo ci dag ne dikk na rek ci nettali yi kon noonu lañuy wax in hadafta sanada bu fekkee da nga andiwul sanad kon bu dee saxiix da nga dogu bu dee daif nag ngay jëfandikoo siixatu tamrid moy waxé no ak dogu du ci am loolu mooy andi andiwut sanad boo andee sanad mom sanad moy àtte kon yow jëf dowaat kon yow engagé woo sa responsabilité daal ndax sanad ba ngi nit ñi xol ndax ndax doy na wal doy man yox taj bi riwayati kan la sukkandiku ci ab netti leen loolu da koy waxaat fii rek waaye waxoon nañ ko ci ba ñuy def suruutu xabuuril xadiis ndax waxoon nañ ne day nekk adl nekk daabit day nekk adl nekk daabit yooyu rek lay waxaat fii itam waaye fii nag dina tas adl gi dana ko leeral loolu mooy adaala mu ne adlu riwaayati wa zaaka muslimu kon adlu riwaaya moom mooy nit ki dajale yi muy bëgg a tudd fii kon man yoxtoj bi bi riwaayati fii mooy mu am adlu riwaaya mu nekk adl mu nekk adl ci wàllu riwaaya ndax adl ci wàllu wut nag adl ci wàllu shahaada moo tax man adlu riwaaya adl ci riwaaya moom mooy ka nekk adl ci riwaaya mooy muslim lay doon <coughs> mukallaf lay doon mukallaf nag bu ñu ko waxee rek mooy ku boole ñaar البالغ العاقل البالغ العاقل كنا نك مسلم نك مكلف نك بالغ عاقل نيت يسلم من الخسيس وان ابيح يسلم ممج من الخسيس خسيس ما لو اك وان ابيح دونتلو دويت دال دويت دونتلو نيو داغانال لو لي نجي جوب الخسيس موي loo xam ne day dañ naan day sikkal li ñuy wax murua murua day sikkal ñuy wax murua murua nag mooy nit ki am na lool fi mu nekk mu tamaa bi mu ne rafetluwuñ ko ci moom bu dee sàmmonteeg loola di ko moytu di moytu mu tamaa bi rafetluwuñ ko donte sax yàlla bañu ko mooy wa in ubiha donte day lu dagan sax waaye mujtama bi rafetlu ko ci moom moom bu ko dee moytu dañ naan mi ngi sàmm muroo am am na muroo am bu ko dul moytu nag dañ naan amul muroo am bu defee lenn lu safaanoog loola dañ naan mu ngi yàq muroo am yu xillu bil muroo am kon na mucc ci loola kon na mucc ci lu suufee lu yàq muroo am muy ñeent juróomeel bi wa min alsaxair lam yaqtarif cheyan min alkabair kon yaslam min al xasiisi wa in ubiha wa min alsaxairi na na mucc ci yooyu na mucc ci it lam yaqtarif cheyan min alkabair bu mu def dara ci kabair yi itam ndax kii def kabira dañ koy tuddee dañ koy tuddee faase moo tax dañ naan wax ne bu mu nekk faase dañ naan yekoonu laa yakoonu faasiqan yakoonu daa muruwa al muslim al baalig al aqil kon juróom yooyu ku ko boole lañ naan adl la adl la ci wàllu riwaaya liñ ci jublu nag mooy waxtu wi mu koy li mu koy joxee waaye jub waxuñu waxtu wi ñu koy jële xam nga yooyaay da ñaari wàll nit ki day jël ba noppi joxewaat waxuñ fi muy jële waaye fi muy joxee lañuy wax sart yi fi muy joxee lañ koy sart waaye fi muy jëlee sart sartuñ ko ci ñu wax ne nit ki ba mu nekkul jullit la mu jëloon fekke woon yonent bi ko nekkutoon jullit ba mu koy fekkee waaye fekke na mu def ko wala mu fekke mu wax ko boobu nekkutoon jullit kon boobu la ko jël waaye jamono yi mu koy nettali jullit la jamono yi mu koy nettali moo kont foofu la ñu xool bu doon safaan bi it ku doonoon jullit yonte bi wax dara wala mu def dara mu xam ko fekke ko far yàlla tere mu génn ci lislaam bu ko doon nettali des ko nangu jamono jël ci ñu wax yépp nag juróom yëpp kon bu njëkk mooy adlu riwaaya mooy mu ku mu nekk adlu ci wàllu riwaaya kadaka la yuqbalu illa man dhabat naka nonu desul desul mango ab netli ci kudul ku am dhab mooy ku am ak ku am ak ku am ak Ku kon ñaaree ak atlu dhabit ki am ak watt kan mooy man zayal al khata kathiran wal ghalat man zaayala zaayala mooy faraqa ku tàqali تقلقوا الخطا اصل بي الخطا وهي تكون الخطا كون موي كو تقلقوا نجومتي لو بري كثيرا والغلط غلط الخطا بان لا رك نعطف تفسير لا والغلط دكو دكو عطف في خطا غير تفسير كو لو خطا موي غلط كون موي كو خمنا نجومتم بري وت نجومتم بري وت ndax mënuñoo wax ne ku dul mukk mukk mukk mukk rek la ñuy nangoo nett leen ndax loolu mën naa jafe ci nit waaye ku njuumteem dul bari te mooy ñàkk wattoom lim dégg bu koy nettaliwaat lam cay juum lu néew la lu néew la cay juum lu néew nag koo xam ne lu muy nett lu dana ca juum tuuti waxuñ loolu mooy nett yu bari moom du ci juum dara léeg-léeg mu nett nag benn juum ca loolu lañ jublu ci njuumte lu tuuti waaye jubluñ ci nag lu bu ne mën na caa juum waaye dañ ca juum du bari loolu bu war nekkatul ko wattu waaye mooy koo xam ne bu koo xam ne bis bu taree juum kooku naa tari ñetti yoon du juum ñeenteel ba mu juum ci kii loolu kooku mën nañu wattu na loolu jublu ki nga xam ne bu nettalee lu néew la cay juum nu ñu koy xamee nu ñuy xamee ne nit ki wattukat la mu ne yaxtabiran bi daabitin nettalikat boo xam ne xamagoo ko woon buy nettali na ko natt ci ab daabitin ñun xam seen wattu ba noppi ñun xam seen wattu ba noppi ñooña ngay nga koy natte mooy lim bokk ak ñoom nettali ko boo gisee ne ñoom dëppoon ak ñoom nañ koy nettalee kon dangay xam ne kon wattukat la moo tax ma ne fa in ghalaba wafqun fa daabit bu fekkee li muy dëppoog ñoom moo moo not moo gën a bari kon jàpp ko daabit wa illa bu fekkee li muy dëppoog ñoom nag daa néew yuj tanab dees koy moytu kon mooy dees ko jàpp daabit deesuñ jël la muy wax kon ñu ngi natt daabit ci ñi ngi xamee dab ba noppi li muy nettali dañu koy nett ñoom itam bu dee li ci day dëppoog ñoom dañ koy jàppe wàllu saabit moom bu dee li ci nag day safaanoog ñoom day wuuteeg ñoom dañ koy bañ jàppe saabit fii nag muy masala moo xam ne ci adaala la aju muy bidaa yi bidaa yi ndax dañ koy jàppee adl wala déet hal yuqbalu lbidaiyu aw laa yuqbalu aw geyru man daa wa hada al amthalu joxe ne ñetti taxawaay wax bi mu jàpp ne it mooy bi gën a dëgër hal yuqbalu hal yuqbalu lbidaiyu mooy ndax dañuy nangu bidaa yi mooy kuy kuy kuy jëfandikoo bidaa ku nekk ci bidaa ndax ku nekk ci bidaa dañ koy dañuy nangu netti leen waaye tënk nañ ko tënk nañ ko ci in lam yastaxilla al mooy bu fekkee moom bokkul ci ñi daganal sos yoo xam ne ñoo xam ne dañuy daganal sos ñoom amoon na ay jamono ñoo xam ne dañuy daganal sos dañu jàpp ne dagan la sos ngir dëgëral li nga nekk bu bokkul ca ñooña waaye nag ci biddaa la nekk ndax danañ te te te yee ñu wax am na ci moom li ñuy wax ci ad adl am na ci moom dabt am na ci moom waaye nag ci bidaa la nekk waaye nag àggul ci di daganal sos ndax dañu nangu metti leen al imaamu Shafii ak abu yusuf ñoom ne waaw ab bidaa yi bu fekkee doonul kuy daganal sos danañ nett danañ nangu metti leen moo ko jëmi bidaa gi rek du yàq adaalaam aw laa yuqbalu wala sax duñ ko nangu benn yoon bu xasee nag biddaa rek kenn du ko nangu am na ñu ko wax aw xeyru man daa wala boog ki ñuy nangu waxam mooy xeyru man daa mooy kudul kuy wooteel biddaam boobee nit daa nekk ci biddaa di ko di jëfe moom rek waaye nag du ca woo keneen nit daa nekk ci biddaa ba nag du ca woo keneen mais ndax ki ci dul woo keneen moom dinañ ko nangu waaye ki ci woo ak ñeneen ñi nag deesu ko nangu mu ñetteel bi ñetteel boobu nag moom la ki ëpp ci borom xadis ci jël imam Malik itam ci la bokk ci ñi jël boobu ñu wax ne ki nekk ci bidaa te di ko wooteel kooku lañ dul jël waxam waaye bu ko wooteelul danañ jël waxam ñoo xam ne ñu ci bidaa waaye mu ngi koy dund moom di ko jëfe waaye nag nekkul di ko jéem a tasaare ak di ca woo ñeneen kooku bu nekkee adaala bi ñu waxoon ak dopt bi ñu waxoon mi ngi moom dana jël waxam ki koy wooteel nag lu lay man di nekk ci moom itam du tax njël waxam ndax dañu ñaaw njort ci ne wooteel bi daam mën naa tax mu àgg sos ngir dëgëral bi daam moom mu ne wa am al amsalu taxawaay bu mujj bii moom nee na mooy taxawaay bi bi bi gën moom moom la dëgëral daal mooy ne kon ki ki ki dul wooteel bidaam danañ ko nangu kii wooteel bidaam na ko dul nangu bu mujj boobu nag moom lañ jëfe dëgg dëgg daal moom lañ jëfe mooy borom xam-xam yi xadis moom lañ jëfe ñu demee daañ nett ñooñ jàpp nañ leen ay mubtadi on waaye nag bokkuñ ci ñuy wooteel seen bida dañu xam ne kon seen jëf moom loolu la dëppoo mbirum bi daanaka daa day day xaw a dewaat léegi ndax day dem ba àgg ci daanaka ku wuuteeg yow rek nga jàpp ko mubtadian léeg-léeg léeg-léeg maanaam ci misaal ahlu sunna ñoom ahlu sunna firaq yi ci des yëpp mubtadaan la ñu di jàpp kuy siyaan yi rek mubtadaan mubtadaan la kuy mu'tazili mubtadaan la kuy xaarij yi mubtadaan la ndax ndax dañu jàpp ne yoon wi ñu jaar yoon wi ñu soo seen bopp la bokk tëg yoon yoon yoon di bàyyi woon waaye teewut ci ñooñ ñëpp nag dañ nettali seeni wax su fekkee bokkuñ ci ñi wooteel seen bi daal borom xam-xam xadis ñu ci ëpp noonu lañ doxale ten loolu mën naa bu ñëwaatee mën a jël maratibu taadil it maratibu jar mën a ànd tam wala boog ñu ber bii boo liggéey jël beneen Mm, amu ko ci leer daal mm. bokkuñu ànduñ de de من الخسيس يسلم وإن أبيح ومن الصغائر يسلم من الخسيس وإن أبيح ومن الصغائر ما يسلم من الخسيس لي مكتي اك دايد دايد ما لو مجتمع بي جابك دايد سي موم وين ابيح دون تداي لو دغانال صح لي مكتي من الصغائر bakar yi te bakar yi ndaw dañ ci joxe misal ci ci ci misal am na ñooñ fii mom, dañ nan mom mom la wax rek mom mu tama bi moom rafetlu ko ci mom man nako koo man nako baña baña bañ man nako baña joxeet rafetlu ci keneen lu mel am na ñooñ mu tama biñ nekk du rafetlu ci ñom ñuy lek ci mbedd te du ko ñàkk a rafetlu ci keneen hmm? lu mel noonu kon ku bokk ci ñim koy ñàkk a rafetlu da ko war a moytu bu ko dul moytu dañ naan sàmmul moroomam loolu misaal la ci col sax rek col rek am na col gopp am na mujtama yooyu duñ ko rafetlu ci diw sàngam ñoom mooy catégorie sàngam duñ ko rafetlu ci ñoom ku bokk ci catégorie boobu war naa moytu col googa bu ko dul moytu kon mooy sàmmul mu roo am ka ca bokkul nag nga xam ne ñàkkuñ ko rafet lu ci moom moom waaye ñu ko dara du ko yàqal dara ci mu am waaw mu roo am noonu di demee doonut loo xam ne ñëpp koy bokk sàkkantuma nag muy doon loo xam ne àdduna sëpp koy bokk waaye ci béréb yi la aju ci kuréeli nit ñi tam la aju kuréel bu ne ak la ñuy rafetlu ci moom ak la ñuy ñàkk rafetlu ci moom zaka qad aqarra bi ixtilaaqi ma an ubayyin jaa bi ittifaaq loolu lépp ànd ki ñuy wax maysara ibnu abdi rabbi dafa iqraar mooy dafa wax dafa wax ne moom moo sos li askanale ubay ibnu kaab lañ ca jublu mooy lay fa muy waxe naan saar saar sàngam am na nga leen am na nga leen sàngam ba alquran jeex jël ko saar saar xadis yooyu lay la may sara wax ne man maa ko sos sos sanad bi itam jaarale ko ci ubay ibnu kaab loolu mooy hmm? koom ah seedu fawum ah ndax loolu xadis la ñu wax ne moom la. sajda yaasin duxaan sajda yaasin duxaan fatxe waaw noonu yooyu ñu ci bàyyi xel suñ keroog fi ne xale yi seen jàngaat yi ñu ngi am solo nga benn waaye dañu ma man dafa am ko ma ñu ko nee na dafa am bi dafa gis bu nekk daal bismillah rahmaan rahim இல்லைன்னா கும்பிட பெருமாள் எங்களுக்கு புரியுது I love you. ah sëñ bii bii bii ah daal soxna nga wax sëñ si mi ngi fi moom bu wedd mën naa weddal bopp waaw ah, ah, waaw loolu la ñu waaw waaw waaw xam nga xool si ñebe daal fi mu day luy jóge ci moom. digg hmm. daal yooyu dañ koy moom mi ko sax xamoo ko déedéet moom mi na xaalis ci boppam sax xamoo ko de nga xamoo dara ci loolu moom mi na xaalis rek xamoo ko waaye ndax ci. قوم أم نسفيهم ودواء تكيكي ودواء يونيهم ودواء مثلهم بيتكم أم يطلب te fi mu ne ñoo ñuy wutal ay ndam yëpp fi mu ne fi ne maanaam màggal màggal yi ñuy am nii nga xam ne màggal bu ci dikk rek dañ ci dégg lu bees lu ñu yokk daal loo xam ne daaw bu doon jeex daa war a jeex nag maanaam suñ taay bi ñu fi jógee ba léegi nag lu ñu nett ci moom normalement waroon naa fekk ñu dégg lépp fi mu ne nii waaye at mi nag nga déggaat lu bees la mosu dégg <laughs> te fekk nag kooka ñuy wutal yu ñu koy sosal yu ñu koy yokkal fi mu ne am na amna lenn wala ñaar wala ñett yu wër yu wër yo xamni kan sikku sikkiwu sàkkat te doy na sëkk dañu bëgg nak mu doon jinni wala yëmel non te ñett yu wër yo xamni lo bëgg ci daraja ma nga ci lo bëgg ci lu baax ma nga ci yëru sakka yéen ngay sàkkaat yeneen di ko ci dolli kon dañuy nangu dañuy hmm. euh, mooy koo xam ne hmm? hmm. la doon bu maandu ku maandu ku lay doon rek maandu jooju lay firi maandu jooju lay wax kan mooy ki maandu euh, maandu lay doon ku maandu nag mooy jullit nekk mu kàll te mucc ci mayëru maanaam yu doyadi daal lu yàq lu yàq ma yëru lu doyadi googee dagan na ci moom ci lu mel ni lekk ci mbedd wala wala ay tuba yi tubaab yi am na bu dee fii ci ci ci ñenn ci ñenn ci ñenn ñi lu ci ne ci ñenn ñi la lu ci ne ci ñenn ñi la ci ñenn ñi dégg nga te tamit day doon koo xam ni day mucc ci ay bakkaar yu ndaw mhm. ak kon mosuta def bakkaar mhm. Hmm? Mhm. noonu waaw yooyu yooyu yooyu noonu bokk na ci ñi nga xam ne dañuy ndax koo xam ne kasaaga laay ko lam dor mu ne ba tey nga xam ne dañuy nungu hadiis muy koo xam ne dafa am dor Uh-huh. ndaxte jàngoon nañ ko ndaxte taamu ko ndaxte xatu tuuti nag mën nañ jël uh-huh. hmm. mu ngi dapt nag mooy man zaayalal xataa te ba xara muy koo xam ne daal ni ñuy xamee ni ñuy xamee koo la nee léegi nag su fekkee man ndax mën nga leen léegi moom moo kenn dëppoo moo maanaam daal dañuy dëppoo ci ay ak doom su baat adaaba waaye su safaan ba am ko mu jàppale ko su baax wala laa su loolu amul nag parce que nit ki nag buñ koy buñ koy waxee mu ne nag kii wax nag ndax kuy def bi daal dañ jël àddisa wala jël wala def ci gën wala ba kii def bi daal te ci woote mhm. dañuy jël addisam wala kii def bi daal ci woote hmm? ak ah, waaye waaye ñu ne bi ci gën a baax daal kii kii wax ci gën a am solo mooy koo xam ne day def bi daal mën nañu jël addisam bu fekkee du ca woote mhm. moom daal dana koy def waaye fekk nag matal na saa kii nekk na mhm. đó chính là thật đạo nhưng mà À, được, được, được, được. Ừ. Ừ. Được, được, được. Ừ. jasmu mooy siyaxatul jasmu lay doon lay doon siyaxatul jasmu lay doon nga koy defee siyaxatul jasmu nga koy defee hmm, mooy xabar mooy xabaru an naqlu hmm. waaw loolu moom day matal béer yi rek waaye lim lim jublu mooy booy booy booy toxal saxiix na nga jëfandikoo seexatul jasm waaw lu mel ne xaala hmm. buñ ci noppee nag mu naan nag na nga hmm. Hmm. mu ne nag wa xayruhu ñoo ko doo dara maanaam doo jëfandikoo dëkk muy mu koy néew doole daal mu ma ko nga comme lu mel ne nga war a def fi xadis amul dafa def ma kaala jamono wala nga ni ruya xam nga xam nga moom moom ne lu fi ruya am na wala jaa fi xadis يكون الجسم إن حسبت السنة إلى أجل ci ci hadith boo xam ne du sax la waaye soo asaf bi sanal bi kon jiw yi noonu dañuy sosal yonent bi hmm? mooy koo xam ni man azhara soob mooy koo xam hmm? Hmm? ne daa ak baax ak dëgg ñëpp jàpp na ko baax nag waaye nag waxta saba te muy jéem sàkk tuyaaba bi wax day teg ko si kawee sosal bi mu sàkk sosal yonent bi loolu ci ba ma dafa jàpp ni wax gi muy wax ni yonent bi nee na dana tax nit ñi baax xam naa lu mel ni comme ñu gën a dugg ci alxuraan doom doom jamono boo xam ne xëy na ñu day ci xam-xam sàngam wala kii alxuraan moom muy indi ay addis xam ne da cee wane ni yonent bi sallallahu alayhi saar sàngam saar sàngam Hmm. Ah, mu ne nag mislu lasi sanaa fil fadail waaw mu ne lu mel ni la xam ni eh, def na ko ci fadail charru ah, charu jaahili charu jaahili mislu lazi sanaa charu jaahili fil fadaay charu jaahili mooy mooy avancé dégg nga waaw bu ne daal ku ku ku yées ci koo xam ne dafa dafa réer lam defoon ci en tarjumaani zikri ci tarjumaani alquran mooy Ibnu Abbas tas tasal sosal ko daal sosal ko dégg nga wax ni Ibnu Abbas nee na li nag li zaaka qad aqarra mu ne loolu nag mu ko xamee qad aqarra moo ko sax moo ko moo moo moo saxal bil ixtilaaqi ca parce que ma ma la nga xam ne jaa dikk na bu ci wax xiita bu am ubay jóge ci ubay hmm? ubay ubay ab aji boo xam ne ñu soo bëggee xam nag addis bu moom doom du ko am na ay xammekaay yu soo yokk mën a xam ne mooy sebagai orang dapat mereka ini ada dapat dapat kau modal ada hmm, ya, amul pasar apa pas sudah amul pasar kayaknya mending orang yo yo yo kami nah yo itu terasa kan nanti aja orang nanti kenapa tahu itu ayo ayo orang wal ikrar mun ko xam ci dem ki ko def taxal ko comme lu am ci ñeey mo koy sank mën nañ ko xam tamit bil qara'in qara'in mooy ay dalail ay tegtal yi ñuy topp ba kon ñi nga xam ne tey ñoom dañoo am dañoo dañoo am xam-xam ñoo féetewoo ak lislaam ñu ciy gis ñooñu tey ci misaal ñoo mën nañoo seen yaram daw ñu digg ak daw boobu muy daw rek di di di am maanaam dañuy yëngu dañuy wane ne ah ak dara non non seen dund bi ci moom. xaalis bi daal am na ñu ko toppee nag ñu yóbbu leen ci mën na ci am de mën na ci am mën na ci am hmm? moom daanaka mën nga ne lu dul Buxaari ak Muslim rek mën na ci am ak xëy na Muwatta waaw Buxaari ak Muslim Muwatta la lu dul moom rek mën nga ne Muwatta mën na ci am hmm? Hmm? jàmbaar moo tax mu am ci rek yam ci bari moo tax mu am cër ak yam cër du bëri